Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien, disponible en ligne sur réumi.com, nous fait part d'un remaniement en vue après les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales et explique pourquoi ça ne va rien changer. En villégiature à Popanguine en cette période de vacances gouvernementales, il nous revient encore une énième fois que le président Macky Sall va remanier son gouvernement pour retrouver un nouvel élan, note mon confrère Mohamedou Ba, qui se pose la de savoir ce que changer. Il ne peut y avoir de changement de casting sans changement d'analyse et d'orientation politique et économique. Tant que Macky Sall fera reposer son action sur des analyses périmées, il sera incapable de tenir les promesses qu'il a faites aux Sénégalais. Si les produits sont périmés, ça ne sert à rien de changer de cuisinier, selon à lire dans Réumi Quotidien disponible sur réumi.com. Wolf Quotidien s'intéresse aux liaisons dangereuses d'Aliou Sall, le frère du président de la République. Le journaliste assiste à Wolf Quotidien, Aliou Sall, le frère de Macky Sall, est devenu en quatre ans un mania des affaires. Westaf News a mis en exergue ses relations avec des hommes atypiques au passé trouble où se mêlent conflits d'intérêts et délits d'initiés, selon Wolf Quotidien qui rapporte toutes ces informations à sa page Pendant ce temps, le quotidien de Madiambal Diagne qui informe que l'ancien président de la République est attendu prochainement à Nouakchott titre Wad Rod Nouakchott. Les autorités sénégalaises scruteront néanmoins très attentivement tous les aspects de ce voyage pour jauger l'état des relations entre les deux capitales en ce moment de froid diplomatique, d'après nos confrères du quotidien. Concernant la loi sur la double nationalité des candidats à la présidentielle, le populaire nous apprend que si Cicelo alourdit la peine. Il veut que les candidats renoncent à leur deuxième nationalité dix ans avant l'élection aussi le poste de Premier ministre. Dans un autre registre, le populaire revient sur la grève des transporteurs hier. Cette grève du collectif des transporteurs et conducteurs était très peu suivie dans la capitale. La pluie a fait des dégâts dans la circulation et dans beaucoup de maisons dans la banlieue, informe aussi ce journal qui titre « Les transporteurs échouent, la pluie paralyse Dakar ». Le quotidien LAS nous plonge dans l'enfer des Dakarois. Ce journal suggère notamment les dégâts qu'elles ont occasionnés. Enquête révèle pour sa part que c'est la fin de cavale pour Aïda Oumou Kalsoum Diaye, l'automobiliste qui aurait filmé le policier Hassan Diallo pendant qu'elle le corrompait. La jeune dame cadre Focus Immobilier a été cueillie chez elle hier en début d'après-midi par des éléments de la division des investigations criminelles. À en croire enquête, la femme qui est fille de Feu Tidjane Dalindiaye, ancien et épouse du affaire. Concernant justement l'affaire du policier corrompu, Réumi Cotillon estime que le tribunal est appelé à juger un système. D'après le journal du groupe Promo Consulting disponible en ligne sur réumi.com, tout indique que le policier Hassan Diallo va être condamné aujourd'hui. Les faits qui sont graves et concordants, les preuves accablantes et irréfutables militent contre toute forme d'indulgence, d'autant plus que le maître des poursuites, le procureur, qui quittent la France à partir d'Orly pour Dakar en empruntant le vol Corsair sont outrés par la compagnie qui les fait désormais enregistrer hors de l'enceinte de l'aéroport dans un chapiteau baptisé l'Arche comme celle de Noé accueillait des animaux. Corsair et l'Arche de la honte, titre Libération. L'observateur montre Yarar en train de pleurer ses fils. Dans ce journal qui revient sur la disparition des neuf jeunes en mer, Alun Ndiaye, le père de Ibou victime, accoucher avant terme. J'avais le pressentiment que mon fils n'allait pas revenir vivant, déclare pour sa part Jeannette Diouf, mère de Ndiaye. Ce journal livre la liste des disparus à sa page 9. gouvernement bu Sénégal mi nga ca Popenguine yéen kay bi di Rewmi Quotidien jaarale ko ci Rewmi point com ne président Macky Sall ca Popenguine ga mu day xalaat naka la mën a indiwaat ay jonte gouvernement beeg ni muy doxee rawatina ab remaniement au conseil bu collectivité territoriale yi jeexee danañu gis beneen sopparñi ci wàllu gouvernement bi sopparñi bi ni mel Mouhamadou Ba ci ni kabis de Rewmi point ne lan la mën a indi dëgg-dëgg réew mi kenn ni muy doxee wala moom président Macky Sall ci doxalinam jamono ji nga xam ne ji double nationalité au conseil bu collectivité territoriale fi mu toll nii mi ngi féewale dëgg-dëgg langue politique yi moom président Macky muy xalaat ab remaniement gouvernemental yéenekaay bi di Walf Quotidien ne Alioune Sall rakki président Macky Sall fi ñu toll yi liñ koy joxoñee baramu tuuma dafa takk lool moom Alioune Sall jóge ci taskatu xibaar ñeenti at ak léegi mu bokk ci homme d'affaires yi gën a mag ci réew bu Sénégal Western News daal di ñëw ci relation bi mu am diggante mook Frank Timis yéenekaay bi di Quotidien ne maître Abdoulaye Wade tuutu yàggati mu def ab tukkim ne mi ko ci diwaan bu Mauritanie bu fekkee ne am na ñoo xam ne ñi ña ngay soofantal tukki maître Abdoulaye Wade boobu lay koy may gët bu baax a baax eh, ci maître Abdoulaye Wade ak la mu nar a waxtaane kilifa yu Mauritanie ci jamono ji nga xam ne diggante Mauritanie ak Sénégal seen relation diplomatique dafa xaw a ñagas donte ne kilifa yu ñaari réew mi kenn ku ne ngay def kem kattanam ngir diggante bi mën a rataax ndax tukki ba maître Abdoulaye Wade bi ca douane bu Mauritanie du tax ba mbir mi am ay ñagas-ñagas yéenekaay bi di populaire de honorable député Moustapha Cissé ba ñu yi mu bëgg ci double nationalité képp ko xam ne kii bëgg nga fay nekkati candidat faw nga ñàkk ca beneen nationalité fukki at ci gannaaw waa Moustapha Cissé Lo ci ni cabinet ñi wax juróomi at juróomi at dafa tuuti lool te proposition de loi boobu lay moom député APR bi bëgg a yóbbu ci assemblée nationale soxal na sax postu premier ministre yi ni cabinet Moustapha Lo loolu lay mu bëgg bés bu ñu ko watee ci assemblée nationale dana am ñu bëri ñoo xam ne ñi sooy boo ñu xam ne mën nañoo dem liggéey waat ndax ñu doon candidat ci réew bu Sénégal jotagul ndax wàllu dem beeg dikki bi jotul ñu waxtaanee ko yi ni cabinet en tout cas li leer bu mooy dem beeg dikki bi moom na sax ci douane bu Ndakaaru yéen ci ay transporteur ñoom dañoo rasu ne duñu sóobu benn yoon ci grève bi niki tey mooy seen ñaareelu lu jëm ci grève transporteur ne nañu bëri ñoo xam ne ñi ci biir ndox mi la ñuy yeewoo yéenekaay bi di enquête ne lu jëm ci mbirum policier bi di Assane Diallo ñu jàpp ko ñu ko doon ger ni ki tey lay yoon di addu ndax da koy tëcc wala déet lu jëm ci mbirum policier boobule kii di a Umu Kalsom Ndiaye di xale bu jigéen bi nga xam ne moom lañ joxoon baram tuuma ne moo jël vidéo boobule dugal ko ci internet bi ni ki tey lañ koy defeere keneen ki mu àndoon ak moom bi ñu toll nii kenn xamul ndax dafa génn ci réew mi wala déet waaye li réer buur mooy booba tey police mi ngi koy seet waaye mënu koo fexe ba teg koy gétt ki ñu teg ay gétt ba noppi dawul fi ñu toll nii mooy Ousmane Sonko moom inspecteur impôt domaine liñ ko doon joxoñ baramu tuuma ci wàllu wàllu secret yi mu daal di fésal ba aj ko ci wàllu liggéeyam niki ñaar fukki fan ak ñeent ci weer ut bi ñu dëgmal lay taxaw ci kanam conseil de discipline moom ci boppam sax mooy layal liñ koy joxoñe baramu tuma ndax am na wala amul yéen bi ne moom Ousmane Sonko bu mooy sax danañ fa jaaree tekki ndombal tànkam ñi moom fa ñu tere ji baaxul ci ñoom yéenekaay bi ba ñu béy ko Maroc bëggoon a dem ci diwaan bu Espagne boobule yéenekaay bi ne ñoom ñëpp faatu nañu ñoom ñi faatu seeni waajur yi nekk ci réew bu Sénégal rawatina ca diwaan bu Yaraax bokk ci kii di Alioune di waajur wu góor ci kii di Ibou Ndiaye bokk ci ñi faatu ñi ji faatu ci biir géej gi Euh, lu jëm ci wàllu Ibou Ndiaye moom lay Fatou moom daanaka béttuma dafa mel ni dama ko yëgaloon sama yaram Jeannette Diouf moo ko xamle moom Jeannette Diouf di waajur wu jigéen ci Ibou Ndiaye yéen cabinet fi ñu toll nii kay mbir mi tiis dëgg-dëgg la mboolem juróom-ñeent ñi ñàkk seen bakkan ci géej gi yéen cabinet ñëwaat ci seen i tur kii moom tur wi mu bëgg a dégg dëgg-dëgg mooy roi des arènes Eumeu Sène ne dinaa foo xar couronne roi des arènes ci Bombardier moom Bombardier Eumeu Sène ne moom itam roi des arènes bu desee diggante mook Bombardier dong dana ko jël wàllu tàggat yaram Sadio Mané bu ñu moyul du bokk ci jongante diggante Sénégal ak Namibie ñetti fan ci weeru septembre ndax dafa am ab gaañu-gaañu ci mbagg mi tàggatu yim doon amal niki démb